waxee ci suba ñu fa yéene defar benn pain hérisson. Mhm. boo xamante ni jote nañu defar sànq euh, benn li koy composé rek euh, pape euh, li ñu am ci plan de travail bi mooy fromage fromage yi nga xamante ne dama am gruyère ci côté bi donc am bleu d'Emmental bleu nu mu tudd fromage. roquefort boo xamante ne dama ko mélangé def ci tuuti crème fraîche pour mën a adoucir doux bi parce que roquefort xam nañ ko ci maanaam euh, goût boo xam ne dafa assez prononcé donc am naa fi tam sauce pesto mu nekk ay sauce yoo xam ne c'est fait à base de euh, basilic muy ngun-ngun bi ñu fi am nga xam ne dañ ciy def euh, huile d'olive ak yeneen xeetu lekk yoo xamante ne dafay baax ci sunu ci sunu santé donc lii de mooy ñu jël mburu bi maanaam dagg ko ay ay cube cube yoo xamante ne dafa nduroog hérisson hérisson ku ne xam ne mooy signal euh, bi am jam-jam yi donc kenn du ko rek ah kenn ah, ah signal kenn du ko rek waaw kenn du ko rek de Pape <laughs> donc toujours rubrique toujours rubrique cuisine bi Pape ñu ci ànd ak les Boursofia nga xamante tout le temps dañuy accompagner ci cuisine bi enrichi en produits laitiers et riche en vitamines A E donc pour ñu am plus de croustillant dañuy jël tam bër sofia bi pap euh, na ko ci mburu bi dinaa la woon technique bi léegi ci kanam di ci ànd tamit ak euh, micro four cuiseur euh, Samsung bi nga xamante ne moom moo nekk ni ci la ñuy def mburu bi nee naa la mën na wayal soow mën na defar yaawur Euh, dafay euh, saaf euh, ay frites yoo xamante ne doo ci def dawlin bu bëri ba pare di togg ginaar yépp ci micro-ondes Samsung bi nga xamante ne Pape chaque jour dinañ ci andi détails yu bees ah donc dañu ubbee mburu bi nga xamante ne dañuy njëkk def ay maanaam ay ay dagg ay dagg yoo xamante ne dafay parallèle donc ñu jël sauce pesto bi tartiner ko maanaam def ko ci biir donc suñ ko defee ci biir pour yëpp am mën nañ ko jëkk étaler maanaam benn par benn donc suñu paree ñu jël fromage bi nga xamante ne dañ ci def crème fraîche donc def ko ci biir lii en général mën nay servir su fekkee dañuy def goûter anniversaire xale yi defaree leen ko nga xam ne su paree cube yi da ngay jël rek di déguster mën nañu changer tamit parfum yi def ci yeneen goût yoo xamante ne su fekkee doo lekk ay pesto wala doo lekk yenn xeetu fromage yi mën nga jël yeneen sauce tam def ko ci biir pap donc après ñu jël fromage bi def ko ci biir Euh, daggaat ko beneen sens bi maanaam sens inverse bi pour mu mën ñu jox cube yi nga xamante ne moom la ñu annoncé léegi. muy euh, hérisson. donc dañuy jël pesto bi tartine ko ci biir ba nga xamante ne suñ ko daggee. Mhm. Euh, goût bu nekk dina dem ci benn ci partie triangle bu nekk. Mhm. donc ñu jël pesto bi def ko ci biir. Mhm. donc jël soos bi nga xamante ne mooy sauce roquefort bi moom tamit def ci biir après ñu jël sunu fromage gruyère. Euh, dugal ko ci biir euh, maanaam dagg-dagg yi ñu am. li nga defar yëpp daal ngay dugal ci biir mburu bi. waa ngay def ci biir dagg-dagg dog yi. ci ci dog yi ci ci dog ci dogu mburu bi donc ci biir dog-dog yi. donc après nag ñu dugal ko ci four bi pap parce que soo nee fromage euh, danga ko war a may tout tuuti temps pour mu mën a sey mu mën a fondre. oui mais mais mais Alphie li ngay defar nii dafa sandwich. waaw dafa dafa dafa dafa dafa sandwich pap mooy comme ni ma la wax xam nga mburu moom fu mu dem rek da ngay da sa xel dafay dem ci ci ci sandwich. li de mooy. c'est comme sama xarit bi ma demoon seeti muy jë bu may jaay maanaam ñu taxaw ci bopp koñ bi bu may buggee rakk di génn. Uh-huh. ne ko oh, bàyyi dem ba kaay reer <laughs> mu ne ma waaye maire bi de chaque jour soos lay togg. na ko mu na ko mu sànni sol ma ko xale bi na ko du soos de soom bi la fekk mu ngi may jaay affaire mère bi dafa lakkale chaque jour soos chaque jour soos na ko mu sànni sol ma ko xale bi na ko du soos de soom bi la <laughs> mais Pape ci bay dem ba kaay reer rek waa dëgg la comme comme euh, nuñ koy nuñ koy liiwee Pape gis nga boo paree dagg ba pare après mm. dañ koy dagg ci beneen sens mm-hmm. donc lii de mooy nga am ay cube yoo xamante ne su mburu bi génnee ci four bi rek uh-huh. da ngay yëkkati benn rek dégusté ko ah. euh, dégusté ko li de mooy nga am ñam yi nekk ci biir yëpp maanaam fromage bi sauce pesto bi nga dégusté ko teg sa benn taasu café wala sa thé hmm. ci côté bi mais juste di ko kurumtu par waaw juste rappeler rek Pape di la laaj ndax mburu bi mburu bi nduruwul ak Mouhamed Ndiaye dafay nduruwul Mouhamed Ndiaye taxawal ko taxawal tontu ko mburu mi teint la yor <laughs> <laughs> <laughs> merci beaucoup Alfie je rappelle que recette bi mën ngeen ko amaat ci suñu site internet www.igfm.sn wala sax YouTube bi euh, slash TFM le temps nga koy dugal da koy dugal ci foot bi c'est ça waaw dama koy dugal ci foot mu gën a gën a ñor ci njëgu minutes rek fromage bi seey yëpp ñu mën ko déguster d'accord balaa ñuy déguster ñu bàyyi leen nag